leen nuyu di leen ziar yéen ñi war a ñëween ci benn vidéo wàcc Nicolas Jackson bi nga xam ne tey da doon jàkkaarloog Newcastle benn match amico match bi nekk 1 Nicolas Jackson moo dugal match bii bi ci premier mi-temps douzième minute dafa génn sax deuxième mi-temps bi daan ñëw nag décortiquer match bi ak taxawaay Nicolas Jackson mais laataa loolu dañuy wax yéen ñi gan ci bile page ngeen abonné ngeen bës ko notification bi pour ngeen say vidéo au taaral fi ci sama gars yi Jackson quel jour taxawaay bu réerée la taxaw ci max eh, Newcastle bi ak Chelsea bi dugal na bi wane boppam di def ay décroche di dribble di wane ak participation ci secteur offensif bi loolu nag mu nekk loo xam ne lu dal xel la ba tax course bi mu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax ñëpp am yaakaar ne saison bi commencé est-ce que du Jackson mooy ki titulaire wu donte les quinze attaque bi seere na même ku mën a départ boo dugal wala dafa mag si deux seen mbir kon nañ ñaan yàlla bu baax Nicolas Jackson ay maxim yu njëkk mu def ay exploit yu rëy rëy comme ni mu defee exploit ci maxi amicaux yi nga xam ne moo jot a jàll te am nañ ci yaakaar bu baax a baax ñun Sénégalais yi nga xam ne ñu ngi suivre Nicolas Jackson gis taxawaayam kon gaa yi nañ leen ko ñaanal nañ leen ko ñaanal nañ leen ko ñaanal bu baax a baax incha allah bientôt mën naa def saison boo xam ne saison bu ñu bett lay doon yéen ñuy suivre pour ngeen abonné ngeen commentaire wax seen xalaat ak seen gis-gis. merci merci beaucoup am ngeen jaajëf bu baax a baax a baax.